Euh, gannaaw bu ñu leen sante yéen parce que gis nañu seen euh dañuy ñëwaat ci xew-xew bi nga xamné ne ci Sénégal depuis euh, Demb. ci ñaari fan ba euh ñu tuddé ko sommet Renew Pac thème bi nag favoriser développement durable ak coopération bi wara am ci digënté Afrique ak Europe euh, thème euh, président Macky Sall moko ubi ubbi euh wax ay orientation yu am solo recouper le manifeste de Dakar de Renew PAC nga xam tay adopté à la majorité Renew PAC nak ay député euh, européen ay député sénégalais africain ay ministres, ay leaders, ay décideurs, ñom ñoo nek ci digënté ñaari pays mais c'est des acteurs politiques pour gëna euh, rataxal digënté entre Afrique Europe Pacifique Caraïbes gis nañ ne coopération bi yatuna yagna wayé nak amna lu bari lu suy soxé motax ñun ñu andi taxaway bu bess taxaway bu bess bi moy d'abord déglunté à travers un dialogue bi nga xamné c'est un dialogue qui permet aux deux partenaires de s'écouter et de travailler ensemble pour que mu nek lo xam da fay am jeexital bu baax ci ñaari ñaari continent yëpp gis nañu ne coopération bi amna lu bari ci soxé sooxe ñun nag dañu ne ay parlementaire lañu manam duñu def langue de bois li baax dañu koy génne renforcer ko li li baaxul dañu koy teg ci table bi ñu xol nan lañ koy défaré euh que liñu bëgg moy co-construction manam li def ñu defandoo moo tax booy xool d'ailleurs ci tëralinu organe bi dañu am ñaari président ñu tuddee leen co-président benn président boo xam ne euh, euh, européen la allemand la ak benn président boo xam ne africain la marocain la lépp li ñu def aussi dañ koy discuter démb ci suba la ñu commencé woon di xool manifeste bi am ay intervention yu am solo yu ñu def ci li nga xam dañ ko war a def comme réorientation manifeste bi africain yu bari dugal seen kaddu ak seen euh, seen xarañteef ci yëf yi ba nga xam ne tey manifeste boobu dafay am ay points yu bari yu mu génne mooy d'abord euh, ñu coopération bi ñu gën ko rataxal coopération bi mu gën a accentué wu ci li nga xam ne mooy euh, njariñu ñaari ñaari continent yi coopération bi ñu fondé ko sur démocratie bi nga xam ne ñun gëm nañu ne mooy soubassement wu développement parce que bu amul démocratie amul paix amul sécurité développement dafay ñàkk donc euh, coopération bi aussi ñu def ko ci ci ci li nga moy changement climatique yi gis ngeen thématique bi président génne demb ci wax ne l'Afrique a besoin d'un moratoire pour mon exploiter les ressources fossiles ce qui est quand même pertinent euh, ci ci ci li nga xam mom moom lañ jëm parce que ñu dem ci développement ñu avons euh, énergie dafa am solo ci développement ñu am gaz ba paré ñu né duñu financer suñu gaz nous ko exploiter lolu xam nga né neexul ci dégg te ñun dañu nekk ci phase boo xam on a besoin justement d'énergie à coût à coût acceptable pour nous permettre justement de faire les sauts qualitatifs yi nga xam dans la ci pays africains donc réunion PAC xalaatin bu nous la ak waxtaan waxtaan nag ci fraternité te li tax ñuy waxtaan mooy dañu bokk ay valeurs yu ñu beaucoup dañu bokk valeuru démocratie dañu bokk valeuru liberté dañu bokk valeuru euh, dialogue te yooyu yëpp dañ ko war mettre en œuvre pour enrichir suñu coopération motax tax tay tey lañ doon waxtaanee bii di ñew dinañ continuer demat Abidjan pour gëna a xóotal bi ba nga xamné ñun dañuy nekk ben instrument ben levier bu ñuy permettre ñuy améliorer la coopération entre l'Afrique et l'Europe bi nga xamné ne li bari dañ ko seq dañu bokk histoire dañu bokk ay culture dañu bokk géographie dañu bokk aussi taxaway ci euh instrument yi ma wax yoy donc loolu motax dal ñu japp né Euh, taxawaay bi taxawaay bu bees lay nekk euh, te li ñu gëm mooy bu ñu ko continuer ñu dem ci parlement européen def plaidoyer bi ñu ci parlement africain def plaidoyer bi jàpp naa ne li ñu bëgg ci ànd pour pour pour pour euh, suqali sunu réew yi yi nga xam ne ñoo nekk ci ci ci Afrique ak ci Europe dañu ci am dañu ci am succès bu am solo. waaw ah, loolu xam naa sa sa peut-être gis-gis la mais boo gisee tey Sénégal depuis 2000. def plus de 23 ans maintenant ci ren euh, parti ko ay parti libéraux la ñu euh, xool aussi bu baax di nga gis ne jéego yu am solo yi Sénégal def ci maanaam économie ci infrastructure ci euh, agriculture ci lu ji bare bare bari ci transformation structurelle ci libéro yi bi ñu ñëwee en 2000 lañ ko commencé am mën naa wax la même chose en Côte d'Ivoire où le président aussi est un libéral euh, dirigé par un parti libéral gis ngeen a euh, euh, yi Côte d'Ivoire de def pour dem ci kanam boy xol économie yi gënonu deugër tay ci Afrique ci bi Covid bi ñëwé ak crise yi ñëw économie yoy c'est des économies libérales donc libéralisme déluul gannaaw au contraire mu ngi dem ci kanam c'est vrai qu'il y a des menaces partout booy xool Europe avec l'extrême droite avec le populisme et cetera am na ay menaces yu am solo yu fa taxaw mais booy xool tey monde bi yëpp politique libérale la ñuy def même bu ko xamee bu ñu ko xamul bu ñu ko assumer ak bu ko ñàkkee assumer politique libérale lañuy ñuy def moo am Chine moo am tey Russie moo am ci monde bi yëpp libéralisme mooy liberté d'entreprendre mooy liberté d'expression mooy démocratie mooy euh, respect de l'environnement et cetera et cetera donc valeurs yooyu yëpp tey. presque ñëpp dañ ko bokk ba nga xam ne da ngay jàpp ne euh, ay valeur yeneen la mais c'est des valeurs qui trouvent leur source dans le libéralisme. lañ koy def dañ koy def ci hémicycle yi bu dee dafay laaj ay loi euh, ñu porter ko bu dee dafay laaj ay waxtaan ñu def ko mais dañ koy def aussi ci dirigeants parce que fii ay ministres ñu ngi fi ay députés ñu ngi fi ay sénateurs ñu ngi fi donc loolu yëpp dafay wane ne rek les décideurs sont là pour pouvoir maintenant changer. Euh, la dynamique de coopération entre les deux continents. stratégie moom dañu ko waxtaanee ci ci presse waaye daal xam naa ne ñu ngi jël suñuy matuwaay yëpp pour que incha allah au soir du 25 février 2024 libéralisme continue di rayonner.